asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 21 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la ak record yëglikaay bi di sunu làmb nag tey dafa xëy ñëwati ci mbirum Modou Lo wala boog ay bagage si Modou Lo jàppal ay adversaire am daal ci la yëglikaay bi ñëw ndax nag yëglikaay bi dafa xëy tey samp ab laaj ne na Modou Lo ndax du daa bëgg lu yomb maanaam adversaire bu yomb wala boog adversaire da taille moom la bëgg waaye yëglikaay bi de mu ngi koy xamal ne ko muuru de li leer ba leer say mbir moom ci ñuy bax la ruq mu seet mënu cee am adversaire daal mënoo cee am bu yomb moom boo bëggee dégg dëgg ci làmb ji nekk ni moom mënoo am adversaire bu yomb donte que nag coow li bëri na fi mu nekk nii loolu sunu làmb moo xëy tey wax ñu ko wan ñu Modou Lo Abdou Gueye moom mu nga cay wax nee nag waree su ko bàyyi moom mu def ay soam wala boog mu ne day def ay soam du jànjeeg ko moom la mu ko xamal moom nee na ko Modou Lo daal li leer ba leer faaw nga nangoo bëre ak Ama Baldé wala Tapha Tine loolu mooy waxi du jànjeeg ko Malick Thiandoum moom gis-gis ba mu am mooy li leer ba leer daal a fi mu nekk nii moom làmb ji mooy déterminé boog adversaire roi des arènes bi loolu bi di sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax waaye bu ñu demee ci record tamit ba tey ci wax jooju sori wuñu ko ndax nag ku mel ni kii Mbaye Guèye moom mu nga fay wax ci journal bi nga xam ne moo di record mook Max Mbargane Mbaye Guèye moom nee na li leer ba leer daal nit ki tamit dañ ko war a bàyyi mu respecté li nga xam ne moo di plan de carrière am loolu mooy waxi Mbaye Guèye waaye père Max Mbargane itam daa mel ni moom li mu leer li leer ba leer daal moom ne ne daal loolu ñuy wax daal comme ñi mu la wax ne ñëpp du bëre ak ñoom wala mu nekk ni paregul bëre ak ñoom moom daa moom dafa mel ni loolu daal àndul ci boobu gis-gis mu mel ni ki daal fi mu ni moom coow coow li na ci Modou Lo ki muy bëreel ak ku mu bëreel Pape Abdou Fall itam wax na ca waaye moom sax ca côté roi ba ca la gën a wax ndax na neen ba mu gisee Eumeu Sène di solul Modou Lo mbaxana mi moom dafa mel ni daal amaat na yeneen xalaat kon mu ngay wax ak waa CNG bi daal nee na li ñu war a def mooy nee nañ waa CNG daal li war a def mooy ànd wala boobu ànd ci ginnaaw ñi nga xam ne nii ñooy acteuru làmb yi ñu gën a waxtaane mbirum roi des arènes ba gën koo jox li nga xam ne moo di gëdd wala cër ba nga xam ne yayoon na ko mu mel ni ki nag combat booba moom li leer ba leer day buñ cay wax wala di ca wax ak a waxaat moom dafa mel ni fiasco da caa am suñu làmb xëy tey wax ñu mel noonu li ko waral nag yëglikaay bi nee na li leer ba leer dey ay kase yoo xam ne ni day yu fo yu seer la ak loo xam ne daal seetlu nañ ko ca mooy public ba nañu ca waroon a ñëwee ñëwuñu ca ak ay frais d'organisation yoo xam ne day yu diisoon gann la moo tax nag yëglikaay bi ñëw tey du ñu wax lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer day am na keneen koo xam ne nii moom li leer ba leer mu ngay wax muy kii nga xam ne nii moo di Tyson 2 moom nag daa mel ne fi mu nekk mii ni moom bu gars yi wax Modou Lo ku muy bëree la ku koy daan moom day ne na na ngir daan Modou Lo ne na moom daal pare na ngir nag daan Modou Lo wala boo capable na ngir def ko lool ñu ne ko waa sa combat ak ki nga xam ne moo di góor a soog ndam li bi ñu la ko joxee ndax recours est-ce que feete nga ko mu ne feete gi moom du mën a neex wala itam du doon benn ak bu ñu la ko joxe woon ca giw ba ñu ne ko léegi nag foo jëm mu ne parcelle laa bëgg a des ndax nag ku fa daan garga deux daan góor a soog te góor a soog ak garga de di ay gune yu ndaw na kon papa sow laay waxal ak Yékini Junior ak kii nga xam ne moo di garga mboose tay seen dee na leen yéen nag da ngeen war a génn wax ak man ndax boobu ba tey maa ngi seen biir kër di fa def li ma neex te mënu ngeen ci dara kon nag génn leen ñu ne ko ndax papa sow dangereux wul ci yow mu ne amul lu dangereux ci man papa sow a gën a yomb ci man kaay lekk ndax nag nee li leer ba leer góor a soog mi ma daan bërki dem moo leen gën a nekk xale te moo leen gën kon jàpp ne ne day ñooñu nañu ñëw jël man ñu ko waa sa diggante ak ndax da ngeen a defet bi mu am tey seen dëgg ne li leer ba leer daal metti na trop ndax nag làmb moom kuy wuti am nga bëgg waaye boo daanoo day metti waaye nag loolu warta tax Eumeu Sène moom am gàcce wala muy rus li war a def li mu war a def daal mooy génn demaat ci biir nit ñi ànd ak ñi mu daal àndal doxi ay soxlaam ndax nag loolu mooy sport ñu ne ko am na ay rumeur yu fi doon jóg wala ay waxi suuf naan yéen ñaar da ngeen am problème mu ne loolu moom amul tey suba waxi noppi maag Eumeu Sène amuñu problème li leer ba leer daal mu ngi ci li ñu war a ne maag moom ndax combat bi bi mu koy préparé ñoo ànd préparé ko ba mu daanoo itam maag moom ba këram ba lépp sedd te nee na sax li leer ba leer koo xam doom di ko ko wooyee tudde ko petit Eumeu Sène nee na kooku naka ngay amee ak moom problème nee na ma ak Eumeu moom amuñu problème te la ñu seq sax dafa dépassé mbiri làmb loolu waxi kii nga xam ne moo di Tyson 2 la tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb Balla Gaye numéro 2 moom yëglikaay bi xëy na tey seq moom waxtaan Balla nag ñëw na ci commencé wu carrière am Balla day commencement bu méttee métti waaye nag nee na la ma ci jiitaloon doon mbirum xaalis ne na wuru mooy ci woon xaalis li ma bëggoon daal mooy nekk un vrai champion ñu ne ko doom ndax nag ren bisu tabaski sax dem na salle di ko entraîner ci sapeur pompier yi jóge ca dem di def ay contact yu méttee méttee méttee ngir bëgg a nekk li nga xam ne nii mooy mbir mu mag ci lamb nee na moo tax daal nekku kon mbirum xaalis sama diggante promoteur yi man bëre dong laa bëggoon nekk benn champion bu mag a mag mu ne nag début ba moom ku mel ne Alioune Seye 2 daal nee bokk na ci ñi gën a tax mu bëgg lamb wala ñi ko gën a sax lu jëm ci wàllum bëre ndax nee na boobu moom mu ngi nekk école Balla gay Alioune Seye 2 nekk écrit waal waaye daan na ko jox ay technique yoo xam ne ak ay xam-xam yoo xam ne daal am na lu bare baree bari loo xam ne yokkal na ko ko itam ku mel ni Baye Balla Gaye Ndour wax na ne moom day munu koo fay ndax lu baree baree bari def na ko ci moom ndax nag entraînement yam leen doon teg metti woon na trop moo xam moom la les deux Baye Mandiaye ak Elton nee na bokk na ci loo xam ne day gën na koo xëj tey indi ko fii nga xam ne moom la toll ci làmb ji ñu ne ko Yékini moom lu taxoon rek nga xaru rek ne da ngay bëri ak moom mu ne loolu li ko waroon leen dong la dafee sësoon te fa ne yaa fi sës mooy taxafal ndax nag damaa daan Baboy daan Tafa Gueye daan ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne moom da leen a daan dana ko loolu ma waroon sunu combat ma toppan ngir ñu war a bëri te koo xam la woon tamit boobu daan ko nekkul lu réerii ci lam ndax ku toog quinze ans loo xam ne lu ma motivé woon la mu mel ni ki daal xëy na tey di wax ñu ne ko fi mu nekk nii say adversaire mu ne làmb moom tollu ma ci fu may laaje nit fi nekk nii ndax nag lu ci war lu ne bu combat taxawee dama koy def te amateur yi bëgg nañ sama combat moo tax fi mu nekk nii moom aw ma ku may laaj di choisir naan kii la wala kële la li leer ba leer daal ku ñu ma jox moom damay bëre moom Balla Gaye numéro 2 moo xëy tey di wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb keneen koo xam ne ba leer day mu ba def na quartier am mu bokk ci lamb ji la bëre am ca ñaari ndam daan na naaru sogas ñu ne déet ne waay mu nii moo di rëbës fexe ba mu bokk ci li nga xam ne ni moo di lamb ji waaye fexe na tamit Rebeuss nekk li nga xam ne ni day ne bi jàpp na ne day ba leer mbirum lam daa mel ni sooñu woon ca bu baax a ba ñu bokk ca ñii moom li ñu war a fexe mooy mu neex ci ñoom ndax nag saison ba ca ginnaaw dañoo daan woon muy Siteu ak Sa Thiès ba ca topp saison bi ñu génne ñu def ay année balance moo tax nag yëglikaay bi ne day li leer ba leer la leen di xaar déwén buñ ko fekkee te tal ko nar ta yomb yëglikaay bi moo xëy tey ñëw ñëw dinu ko wax waaye kii nga xam ne nii nag moom moo di waa CNC wala ñoo di waa seen ba moom li leer ba leer day yëglikaay bi di les wala boog record moo xëy tey di ñu xam ne day seen mujjeewu séance ci wàllum réunion def nañ ko démb nag waaye nag ñu ngay waajal li nga xam ne nii de mooy nuit de l'arène bi loolu nag yëglikaay bi moo xëy tey di ñu ko wax wala boog nuit de la lutte guddeeg làmb waaye mois de septembre la koy amal record ñu xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni kii noonu waaye ñi nga xam ne nii nag ñoom ñooy bëre lu jëm ci wàllum olympique bi daal daa mel ni ki fi mu nekk nii tamit ñu ngay waaj dugg dey wàllum regroupement waaye koo xam ne nii boobu dugg na ci wàllum regroupement moo di Modou Lo record moo nu ko xamal Modou nag fi mu nekk nii day la mu waxoon daa mel ni moom la bëgg a jëfe de dem nag làqatu ji noppalu ànd ak madam loolu la Modou def record a ñu ko wax xamuñu ni Modou day mu ngi fi mu nekk nii ci quartier boo xam ne day bu neex a neex la ci dëkk bi nekk faak madamam nag ñuy dal di noppalu di noos waaw wax na dëgg noonu la Talla Ndiaye weñ dama ne la xer bu teew sàkket da cay daroo te nag bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am ku ne xam ne làmb metti na entraînement ya étirement ya échauffement ya daw yaak yu mel ni ki noonu kon boo ci jógee nag ak sa soba na mu tare woon ci li mu wax moom Modou Lo c'est très normal fi mu nekk nii nag mu jël ay vacances am mook madam waaye Modou ñaar la yor Talla Ndiaye kañ ngay takk ñaar man mii di wax sax kañ laay takk ñaar Modou noosal ba mu neex la bu la neexee moo ko waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon ak moom si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la jaar di la ñaanal jàmm di ko saaku ci yow mais di nuyu tamit internautes yi di leen jaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci. ko internautes yi si euh, sunu lamb sunu lamb tey nag lu mu ñëw si euh, Modou loolu ñëw depuis bu nekkee roi ba léegi coow bi dafa ko euh, dafa bëre ni ngi. def nag benn jàngat nee ñu Modou Lo est-ce que instant yi bëggul euh, loo xam dafa yomb parce que nee ñu du bëreek euh, tafaatin du bëreek Balla Gaye du bëreek aussi euh, ak Ama balde nee ñu daal est-ce que tamit nekk loo xam dafa dafa bugg daal lu yomb jox nañu kàddu Mbaye Guèye jox nañu kàddu Malick Thiandoum jox nañu kàddu aussi Abdou Guèye waaw bëri nañu ci wax ñoom Père Max Mbargane nag ku si ne jox nga ci sa xalaat kantaan nag dafa bëgg lu yomb wala bëggul lu yomb même bu bëggee lu yomb sax yaakaar naa mën taam si làmb te jàpp ma ne dafa bëgg lu yomb parce que li tax mooy euh, làmb dafa am lu ci am làmb du da ngay wax ne que tey damay bë am na mbër dina toll foo xam ne xay na du taxaw ne diw mi laay bëree li non non non l'essentiel que comme damay dégg ku mel ni suñu papa Max Mbargane ñu koy nuyuwaat di ko siyaar muy faral di am wax bu muy wax dana làmb bu ñu la séentoo nga fetal bu ñu la séentoo fetal nga fet maanaam da ngay signaler gauche jaadu droite loolu mooy làmb mais Modou Lo ku ne xam ne ay adversaire am tey mënta génn ci entre Bombardier mi ko daanoon Balla Gaye 2 mi ko daan ñaari yoon ak ki nga xam ne nii mooy tafaatin Tine Eumeu Sène Gris Bordeaux Bombardier de numéro 2 foofu la ay adversaire am ne actuellement yaa ngi dégg kon yaakaar naa nag foofu ma foofu ñu limb yëpp ba ci Eumeu Sène ndax Eumeu seen a ngi ci biir don donte daan na ko ñaari yoon mais ñun foofu ay adversaire am fa lañ nekk tey kuy seet adversaire wu Balla wala yu ëmma bu yu Modou di moins foofu nga koy seet parce que foofu fa la bokk actuellement nag c'est le roi loolu yàlla dogal na ko roi des arènes nag soo ko doonee xëy na soo gisee polémique bi di am yëpp xëy na loolu moo tax yaa ngi dégg li ci am yëpp di ci am mooy roi des arènes moo téye li ñëpp bëgg kon bu ko neexee tam comme moo téye li ñëpp bëgg nag am trois def tànn ceeb ah waaw waaw gëstu xool ki li ko arrangé mu jël ko mais li leer ba leer moom làmb amul lu si yomb. su ma déggee ngay wax dafa mel da ngay fekk si Père Mbengue parce que Père Mbengue ne na Mour dafa am plan de carrière nañ ko bàyyi mu respecter plan de carrière boobu. waaw mais plan de carrière kay doomu aadama ci boppam sa àddina sa carrière li nga def lépp dafa am plan boo ko war a tëral lii laay def du ma def lii fii laay jaar parce que loo amulul plan pour man pour nga am sa ndam est-ce que dina am wala nga am ci réussite parce que pour man. Euh, sportif bu ne rawatina mbër mu ne da nga war a am plan de carrière parce que gëm naa ne plan de carrière moo ko indi fi mu nekk tey ba mu dégg roi des arènes moo fi indi ay moromam moo fi indi ay moromam kon yaakaar naa nag loolu li mbay gay wax it xel da koy nangu plan de carrière la am nañ ko ko respectel mais nag munu mun terewul nag ñu ne ay adversaire am ñii la de tafaatin mook moom combat la combat jànq la mook Ama Baldé combat jànq la ay revanche lañ koy xaar yaa ngi dégg mook Bombardier Bombardier da ko daanoon mook Lac de Guiers de war nañu mën a bëriwaat parce bëri nañ ñaari yoon mu gañe ko bu mujj bi par ay avertissement bu njëkk ba ñu mat si niil yaa ngi dégg adversaire yi bëri nañ macha allah pour moom mais nag du tere mu moom am na droit ne lii laay def xam nga tey mu ngi dem sax nañ ñu dem ngay noppalu ji parce que tamit am na droit boobu ah noppalu ne saison bi sax bu ko neexee ne du ma bëriwaat mais lépp ci làmb ji la daal. Babacar lu gën a euh, indi coow li si depuis que Modou Lo nekk roi des arènes ba léegi mooy ñu mu élimine si ay adversaire noo bëree benn mbër nga éliminé ñetti mbër yoo xam ne nga ne dootoo bëri doo bëri ak ñoom loolu tax xëy na coow li bëri tuuti si si depuis que les ndey Ndeye Kumba man si suma xam nga euh, Youssou Ndour da ne woon man wax leer neex na loolu may dégg ko raw xam nga bu dee la cadre Balla Gaye li ma dégg mu ni mu wax ci façon wax bi mu wax ça veut dire dañoo bëree ren. Balla daan ko kon yaakaar naa amatul sens actuellement seen combat di taxaw. Tapha yaa ngi dégg ci Balla laa nekk foofu sens bi pour man bareetul xëy na mën nañu fi bàyyiwaat benn at ñaar ba ku ci ne am loo defaat ñu bëreewaat mais ci même kii bi dina xaw a doy waar li ci des mooy bu dee la carte Tapha la loolu dama ne la combat la. parce que combat ak Tapha doon nañ ko fi wax daaw war na ko mën a may chance ñu bëree parce que li tax mën a may chance na ko may chance ñu bëree. yaa ngi dégg mook Ama Baldé tamit seen combat yàgg nañ ñi di ko coow di ko coow di ko coow mu dugg Pikine daan magum Pikine muy Eumeu seen mook Ama Baldé war nañu mën a bëre war na ko mën a talal loxo bëre ak moom loolu yaakaar naa lu jaadu lu raisonnable la mais lépp tamit ci kaw moom mu neex ko la bu ko neexee def soit boobu mais bu ko neexee tamit mu jëli ñeneen su ko neexoon tamit saa tey mu ne damay bëre ak Balla Gaye am na ci droit waa mais nag dafa am loo xam ne nii moo gën a moo nekk obligation quoi moom ñi di gën a xaar waaw mais ki nga xam ni moom mooy euh, poulain wu euh, Eumeu Sène Tyson 2 moom nee na nañ ko jox Modou mu defar ko bagage. waaw moom ginnaaw bu nit ñi naan ki ak këleeg euh, ay Bombardier ki ba ay Eumeu Sène ak yooyu waaw moom xëpp na ci suuf parce que nee dugg na parcelle daan fa garga 2 daan fa bërgi dem guur a soog kon nee nañu génn moom nee nañ ko jox Modou Euh, euh, wax na dëgg parce que comme li ñu wax rek nit ku ne boo nekkee si dara yokku nga bëgg dafa bëgg a yokku te Tyson 2 mbër la ci mbër yi mbër mu mën a bëri la mbër bu mag la parce que wax na ko ci biir waxam def na équipe nationale Burkina Benin yaa ngi dégg kon yaakaar naa champion la def lu war a ma 19 combats yaakaar naa am ci 16 victoire xaw ma gi moo ko daan ki nga xam ne nii moo di Elton yaakaar naa ci li ma ci ci li ma jàpp yaa ngi dégg kon yaakaar naa nag am na droit tey ne nañ ma jox Modou Lo ndax Modou Lo dafa daan tête de yaa ngi dégg kon am na droit taxaw loolu tamit la xaar ci nita bu fekkee ndey ku ma daa jóge fa la dugg ci kër gi duma boroom kër gi foog foog rakk yeeg doom yi génn wane seen bopp moom loolu la def waaw mais nag du tere ñu ne ko ay adversaire am pour mu yomb fii la ak fële la am na yeneen adversaire yoo xam ne tey ñoo gën a nekk obligation ci moom wala ñoom la làmb gën a xaar ak moom par rapport ak Modou Lo duñ ko ne nag waroo bëri ak Modou Lo mais day nekk loo xam ne tamit euh, day am lu ko gën a lu lu gën a kii daal lu gën a raisonnable waaw loolu am na solo Babacar journal bi tamit jox na kàddu kii di Balla Gaye l'ancien roi des arènes le lion de Guédiawaye nee na moom bu njëkk ba lu tax mu egsi fi mu si daaw doon privilégié xaalis plan da doon jël ay adversaires di bëre pour egsi fi mu egsi plan de carrière la amoon maanaam ku ñëwoon di ko proposé xaalis sax day nangu xam fu mu bëgg jëm ëllëg moo tax tey mu may yàlla may ko li mu ko may tey waaw loolu la de olof da dana ku muñ muñ waaw ah bis boo takkee sa biir nag ngir dara ah, ngir am loo bëgg yàlla mën na laa dimbali bés dina jot danga am la nga bëgg te da nga te dana neex lool ci yow xëy nag moom loolu la xamoon carrière nag bu ñu ko dee wax boo ciy dugg yaakaar naa am na lu muy laaj bu fekkente ne at mbër nga bëgg a nekk un vrai champion bëgg a bëre yow bëre ngay jiital ci sa début carrière parce que li tax mooy que ni xaalis soo ko jiitalee mën na la teel a téye ndax li tax mooy mën na tax say combat tardé mën na tax heure yi nga waroon bëri doo ko bëri te boo toogee benn année def bëri woo ko wala ñaar ngir ay yenn kii te nga nekk xale war a prouver loolu dalay lay dina am ñeen ñu génnaat ñoo xam ne mën nañ la romb ci parcours moo tax boo xoolee ci 2005 bi mu ñëwee ci làmb ji ci la bëri petit combat bu bëri ci grand combat moom Balla Gaye 2 yaakaar naa loolu nag euh, ci jamono jooju googu li mu wax noonu yaakaar naa ku ko xool war na mën a nekk dëgg ndax bu jiitaloon xaas xëy na du demee noonu mais nag tey macha allah gis nga fi mu yegsi ci làmb ñëw na tey bokk ci làmb dëgg na roi des arènes bokk na ci tey mbër yi nga xam ne ñoom la amateur yi gën a soxla seen combat di ko seetaan kon yaakaar na loolu nag liggéey a koy maye mais nangoo muñ lu metti moo koy maye nangoo tamit rayante xam li nga bëgg mu jaral la moo koy maye parce que dañ koy faral di wax ku ñaan muñal rek lu neex taxul foo dégg muñal rek ndey Kumba Fall lu naqaree tax mais olof a ko wax tamit ku muñ muñ ku muy muy Babacar ñu jógee suñu lamb dem si record record bi nga xam ni que euh, suba CNG dina installé comité bi nga xam ne nooy def préparatif nuit nii de l'arène bi donc moom la ñuy waajal ci mois de septembre nuit nuit de de l'arène bi mooy li ñuy jël jox décoration yi nga xam ne nit ñoo xam ni ñoom lañu gën a ràññee si saison de lutte bi passé Babacar. waaw loolu moom macha allah am na solo trop parce que tamit c'est très normal ah làmb bu ko buñ ci duggee saison liggéey ci ba mu tëj mbër yi bëree promoteurs yi tëgg ñu bëree xam nga ñëpp ku nekk def sa li li la waroon ci làmb reporter baak journaliste baak ñëpp daal ku ne am loo def yaakaar naa c'est très normal tamit ñu organiser benn guddi bi nga xam ne nii dañ koy jagleel làmb woo ci nit ñi ñu ñëw ñu toog ñi nga xam ne ñu mérité ñu décorer lañ ñu jox leen ay décoration parce que loolu dina gën a motiver ñu nekk ci milieu bi ngir ku ne la ngay def nga gën ko yokk ngir performance yi gën avancé parce que loolu mooy li nga xam ne nii lu jaarul dañ koy def ci football di ko def ci boxe di ko def ci basket ak fu ne kon Babacar ñu jeexaloo ak Leewtoo point net Leewtoo euh, point net ni ngi def benn euh, taxaw seetlu nu ne est-ce que tey jii association bi nga xam ne Moustapha Gueye moo ko moo ko moo koy diriger mooy l'association des sages est-ce que tey euh, jaaduwul tey mu jóg dem seeti ñi nga xam ne maru Pikine ni ñu xool nu ñu def ku jubóo parce que wax ji wax ji bi ñu commencé bëri wax yi ñaaw yu bëri na ndax suñ ko bàyyi rek dina ëppi loxo. waaw olof Ndiaye daa am lu mu lépp lu dul jàmm jàmm ko gën. te ne nañ fa muy jóge du fa jeex fa mu jëmit du fa doy kon yàlla nañ ko yàlla defal li am solo nag bu association bu mel noonu juddoo association des âges ah ñoom Tafa Gueye ñoom suñu père Birahim Ndiaye ak ñu mel ni ki ñooñu ay ñoom Ousmane Diop ak ay capitaine Pek defe naa tey loolu itam moo war a nekk seen premier acte bu ñuy posé nit ñi gis ko parce que Pikine actuellement ni ñu koy gisee muy doxee vraiment rafetul wala boo gënul ci ñu nga xam ne dañoo bokk lu ñu mënta séddoo ndax ñoom mu kenn ci mënul génne sa morom Pikine parce que ñoom ñëpp fa lañ juddoo ñoom ñëpp fa lañ dëkk seen lépp nekk fa kon defe naa li war mooy ñoom tamit dañ leen di lancer appel rek muy Baboy muy Eumeu Sène muy Ama muy Boy Niang muy Tyson ak ña leen mag ñoom Pape Diop Boston di mag di yàlla na gudd fan te wér yàlla defal ko ñëpp ñoom suñu père De Gaulle ay Mansour Diop ñoom ñëpp a ngi Pikine yaakaar naa ñoom ñoo war a tax ñoom tamit war nañu am nañ rôle bu ñu war a jouer ci mbir mi wala taxawaay parce que tamit am na loo xam ne gënul ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj olof nag na na réeroo amul ñu ñàkkul réeroo mën na am mais ñàkk waxtaan su amee rek lépp war na mën a taxawaat kon nañu waxtaan mais ñoom Tapha Gueye tamit loolu yaakaar naa loolu leen waa Leewtoo point net bind ci ñoom ne est-ce que warul mën a ne yaakaar naa war nañ ci mën a taxaw te yaakaar naa ñoom itam ay nit jàmm lañ te gis nañ ne ku mel ni Tapha Gueye gisoon nañ ay wax yu doxoon digganteem ak dégool ci ay eh, lii ak laa Bécaye Mbaye dof ci tànku jàmm sol dàllam yóbbu Tapha Gueye kër dégool Tapha nangu ko ñu waxtaan juboo mu jeex parce que ñoo bokk Sénégal te lu rafet li tout le temps nañ koy teg ci kanam mais yu ñaaw yi ñu suñu tànk lu ñaaw amul sa amul njariñ jërul waxante te jërul defante olof na ne mbaam su la weqee nga wekk ko da ngay xaw a mel ni moom kon yooyu jëru ko nañ fexe lépp rafet mais di ñaanal ñëpp jàmm waaw di la <laughs> wala am looy laajte waay. bàyyi ma tàggoo pare nga soo a may say <laughs> dédicace si yooyu la ñuy leen jox dig daje suba incha allah balaa boobu mu nuyoo euh, Aïcha Faye madame Nia mi ngi nekk si yeneen liggéey moo tax gis leen ko fan yii yëpp di nuyu sama yaay bi nga xam ne mi ngi Mauritanie di nuyu waa Mauritanie yëpp di nuyu sama doom Mohamed jouf di nuyu euh, Dadi Gueye di nuyu euh, Khadija Diallo depuis une unité 26 chéri Euh, Astandine di nuyu euh, Fallou bébé Fallou di nuyu euh, Mame Diarra di ko wax ni que tey revue de presse bi moom laa ko may di nuyu aussi Penda di nuyu sunu bébé boobu ki ñuy wax bébé Rokhaya yaayu doomu Eva Diallo di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp Babacar. waa Parcelles Assainies 1 ba 26 ñu ngi leen di nuyu di leen félicité waat ci roi bi ah. ah di nuyu maire Sow depuis Mauritanie comme na nga ko wax comme moom fa la jullee di ci profité du nuyu waa Mauritanie yëpp rawatina nag ku mel ni soxna Asi Diagne di supporteru di ko nuyu di ko ziar di ko félicité ci seen ndam loolu ak Amina tamit maa ngi koy moom moo jiite KMB xarañ ñu boole maam maa di ko félicité tamit ci seen ah, actuel roi des arènes bi mais di encourage tamit waaw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi suivre ci a ne àddina bi rek xam nga di leen ballu ak di leen bal ak di leen ñaanal jàmm di wax ne daal ñoom Khady Rose ñoom tuuti yaay Sarr xam nga du ma leen fàtte maa leen di nuyu mais di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Xaadim Mbeng nekk commerçant jaaykatu yére fële nga xam ne mooy ca centre commercial Sicap Plateau Dakar borom casque bi tamit waaw borom casque yi maa ngi koy nuyu sama boy bi xam nga Cheikh maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di sàkku ci di ñaan ci Sénégal yàlla def fi jàmm mais Aïda comme ni nga ko waxee rek ñu ngi koy nuyu borom ñetti Babacar yi Aïda way juróom Babacar la tudd yàlla na gudd fan te ayda sëriñam mooy sëñ Babacar si borom bone carré bi bàyyi sañ Cheikh ak sëñ Mansour ayda séeréem Babacar mii toog la kon ayda yaay borom ñetti Babacar yi ayda Diouf béggee naa la taala macha allah fa mu génn ci nayik toog na ak petit samisam bu kon kontaan ci yow taala séeri lébu